wajaxal kalaami rachidan wa murshida wa fikrati nawir waxal bi arshida alhamdulilahi wasalla abada alalazi bihi lana huda abada seydina mouhamadin wal ali wa sahbihi zawin na waalil wali mbokki respectateur u Khelcom production yéen a ngi ànd ak seen doom seen xarit soxna may bintul xaddim ñu ñëw nag tey ci sunu jataay yi ñu daan ànd ak Cheikh Mouhamed seen ak soxna may mii miinoon ngeen ko waaye nag daanaka atum yàllaa ngi nii ñëwuñu ci kër gi def émission parce que dañoo xawoon a diggante yàlla yàlla def na si jàmm ak salaam ñoom tu tànk bu góor ñu ngi ziyaare ñëpp ñi nga xamee ne ñu ngi ñu doon woo di ñu laaj fan lañ nekk di ñu wax namm nañ leen ñoo leen rawoon waaye nag euh, ñu naan jàng moo gis am na àllarba macha allah ci loolu la ñu nekkoon di ñaanal ñëpp jàmm ak tawféex euh, tey nag delsi nañ Euh, ci émission yi waaye nag ñu ngi ci décembre décembre nag bu ñu ko waxee wax euh, Serigne Saliou ndax euh, jëmm ju tedd jooju ci la làqu woon man ak Cheikh Mouhamed Sène Baye Fall ñu dikkaat fas yéene waxtaane Serigne Saliou borom jàppandal borom njurul borom doo di ziyaare waale ñëpp ñi nga xamee ne ñu ngi bëggee Serigne Saliou borom njoowaat nga ca roon xëy ga Cheikh Mouhamed maa ngi lay nuyu di la wax nga nuyoog mbokki téléspectateur Khelcom Production di wax ne nag gars na mën nañ la de. tawarkala tawarkala ñoo ngi ziyaaraat bu baax a baax di ñaan ci barke alxuraan Seex mun Muntaxa Mbàkke Bachir yàgg fi lool te wér ak euh, njabootu maam Saraay Fall gépp di ziyaar nag mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo ñu daan bàyyi xel boobu ba léegi ak di ñu safoo ndeysaan ak di ñu doon ñu yàkkamtee gat encore waaye li ñuy wax rek bala ñoo tàmbali dara li ñuy wax saxaar bu jubee gaar day day yëngu yaakaar naa sëñ kooku moom day daal laal dara ci Serigne rek daal di tijj daal bunt bu ñu jàll. bu ma jooyee dama gisul ko ma miin Serigne Saliou ñibbi na Touba Serigne Saliou Mbacké mbaa xam jooy am yërmandeem nga lay jooy wuy sama yaay booy Serigne Saliou Mbacké dem dee bu doon jaas bon medina am saas waaye dee du jaas yónneen ba dem na at mu nu xind ndoon aadama sancoon adduna weena Adama sancoon adduna weena jërëjëf Serigne Modou macha allah saa yu ñu ko tuddee rek xol yi tooy waaye nag Serigne Fallou tey émission bi maa ngi ci ànd ak waa kër Cheikhul Khadim Bijouterie te ñu nekk fee ca marché Pétincelle ci rond point bi euh, Cheikh Mouhamed euh, Serigne Salim Mbacke ca mën ah, gone ga sëriñ saaliw ca yiw ga mhm. sëriñ saaliw ca kéemaan yi nga xamee ne dëgg dëgg mooy dëgg dëgg sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim xam nga mënoo tudd sëriñ saaliw te tuddoo Seex Ibra Fall mhm. ndax maam Serigne Fall moo njëkk affiché kan mooy sëriñ saaliw mbaa xam ne sëriñ saaliw juróom-ñaari maamam yi féete wàllu waa juróom wu jigéen kenn mus cee lekk loo xaram mhm. maamam ji jur soxna Faati Jaxate fu mas di dem day yóbbaale sànqalus boppam soo xam ne moo ko bay ci loxoom sanqal si ñu koy toggal moo ko daan bay ci loxoom di ko dugal ci ngiseem di ko yóbbaale am benn bis mu am fu mu dem tibb ci sànqal soosu jox ko benn soxna ne ko toggal ma ko waaye xam naa soxna si xam nga rek soxna yi dañoo xaw a xër xam naa neen lii daal tuuti na daal di dem wuti leneen dolli ko ca waaye bi suñ sëñ bi tibbee benn tibb rek daf ko daal di génnewaat ci saa si ndax li mu ko moomutu tax pour wax la ne ku saa borom protégé la woon ñu yëkkati ko nag mu doon yiwu suñu borom doon gëneelul suñu borom doon yërmande suñu borom yëkkatu fa ñu yëkkati ko faye ko Serigne Touba moo tax wax nañu ne bi mu ganee jamono maam Serigne Fall moo njëkk ñëw taxaw ci ginnaaw sàkkir wi yëkkati kalimatu laa ilaaha illallaah soxna Faat Jaxate génn néeg bi ñëw na cas jëmmi Serigne Saliou moom Cheikh Ibra jël noppu nopp càmmoñam bii dëpp ko ci dëndub Serigne Saliou bi di ko déglu diir bu yàgg. mu yàgg mu ne aadoom ah ndax xam ne secret suñ borom yëpp daje na ci dënub saalihu ne ndax xam ne secret suñ borom yëpp daje na ci dënub saalihu mi daal di ne ak a neexoon xelli koom di tey bañ xam ne kii yey borom waaye boobu baatu xelli koom nit mosu koo dégg maam Seera ku ñu ko wax di ko ndàkkante la jëmi sëriñ saalihu xelli koom xaaf téeméer laam fanweer keef ñaar fukk waaw juróom benn miim ñeen fukk kookaay sëriñ saalihu li ma gën a daane ci moom mooy li mu wax ne jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom la sëñ Tuubaa daan def ca mag ña yombut di mag ñooñu amuñu woon Facebook mag ñoo ñu amuñu woon YouTube mag ñoo ñu xamuñu woon TikTok mag ñooñu xamuñu woon lekk lu xaraam xamuñu woon jëbante xamuñu woon saagante mais mag ñooñu yomb nañoo defar mag ñi toppoon Sëriñ Tuubaa ku ku dañoo topp sëriñ bi waaye amu ci kenn ku nuy defar ngay soog a dellu si comme ci doon da ngaa matum sëkk ah Cheikh Jéeri waa daan sugu Cheikh Jéeri waa daan da fëgg buntu kër yàlla. bu yàlla ne ana kiy fëgg mun ko mën a jéeri waa daal xool bii sañ-sañ kooku bu ànd ak sëñ Bàmba si na sëñ Mbay Saar nag kii bind yàlla ay leetar mu koy tontu waaw xanaa kii moom itam egg na Cheikh Rafal nag ñaan mas nay xibaar ak njëbbalam bay wax ni yàlla mi ko moom moo ko ne Bàmba moo la moom raasi ko jox ko say pexe waaye kuy wax ak yàlla xanaa egg nga ñooñu neex na ñoo nekkal waaye période bii Serigne Saliou ñëw ak fi mu fekk jamono ak yi xew ak fi jamono toll mu ne jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom la sëñ Tuubaa daan def ci mag ña su ma ko matee wutit ma barkeeloo ko bokk moo tax it gis nga gaañ ni ñu mel tey <laughs> daara yaa ngi ne gaañ dongo yaa ngi ne gaañ ki gën a zaayiri ci àdduna boo ko ne koo bëgg mooy la Serigne Saliou Soxna May ñu ngi siyaaraat bu baax Euh, jërëjëf Cheikh Mouhamed seen li nga wax rek ci Serigne Saliou moo am ndax Serigne Saliou moom euh, ku ne xam na ne ba mu fi jógee léegi mu def diir waaye macha allah xale yi ko xamut sax. ñoo gën a bëgg Serigne Saliou diggante Serigne Saliou ak gone yi nga xam ne mosuñoo gis kuy Serigne Saliou xamuñu parce que ñun am nañ sensu xam Serigne Saliou. Ah, mais am na ci ay gone yoo xam ne xamuñu Serigne Saliou te foo leen fëggee ñu ne barke Serigne Saliou loolu moom loolu moom mooy mooy li ko Serigne Touba baaxee rek. ndax bi dénkaane nafsi wa diini suma ahli wal walad ni maskani na dina fee dammi wa ahli wa awlaadi hidaahu lahum nga xam ne kon bi muy dénkaane yim dénkaane yëpp bi ma ci ëppal solo mooy wal walat doom yi léegi nag wala dul xal bi yooyu ñooy doomi Sëriñ Saaliw yi fi mu ne du bokk gi aw sant de ka sant Jóob ca la bokk ka Faal ca la bokk ka sant Mbeng ca la bokk ka sant Seen ca la bokk ñoom ñëpp ay doomi Sëriñ Saaliw lan moo tax ñu mel ci moom mii xamoon nañ sëñ Touba xamoon nañ ci moom dara bëggoon nañ ko bëggoon nañ Cheikh Ibra kenn ku nekk am na foo jokk woon waaye dañoo mujj dajale waat lépp nag jox ko Serigne Saliou mu sotti ko ci xoli jaam yi moo tax dama naan la barab bee ne maa xam ne barabu Serigne Saliou dem déedéet musuma faa dem barke alxuraan musuma faa teg tànk munuma ko su ma fa demee mën na mën na maa def neneen tàmmuma ko waaye li ma bëggoon a wax jàpp ne Serigne Saliou denc ñu ko foofu ñu ngi ko denc ci biir xoli doomu aadama yi. Serigne Saliou barabam mooy xoli doomu aadama yi comme yàlla nee na wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil waridi bu mu téye seen xol yi maa leen ko gën a jege waaye kenn ku nekk xam nga fu la Serigne Saliou boo doon wër di laaj def micro koo laaj mu wax la Serigne Saliou loo mus a dégg koo laaj ci mbooloo mi ci adduna yëpp koo laaj mu wax la Serigne loo mus a waaw ba ci nasaraan bu weex beeg chinois beeg beeg ñëpp waaw defar ñëpp nag defar ñëpp kenn ku nekk xam am na fu la Serigne Saliou féete kon yàlla ñu ko yàlla fayal barke Seexul bi yàlla ñu ko yàlla fay. jërëjëf Cheikh Mouhamed Sène yërmande gi. yërmande mhm. ak Serigne Sall. déet moom koy yërmande nag yamalewu ko kenn kenn kenn kenn ci àddina yërmande Serigne Sall ëpp na ëpp na xelu doomu aadama. Mhm. Mhm. keroog bi ko njëkkee wan garabu yoo garabu yooyu yooyu ñuy taal muy muy rey yooyu keroog bañ ko ko wanee da koo yendoo tuuru xéewal daanaka. ndekete maanaam bëgg a nelaw rek mën naa tax mbindeef di rey moroomu mbindeefam waaw moom foofu la gisee. ba ci nag yi ci daara ji bu ñu mësaan mbëkkante wala ba benn gaañu ci rek da ngay gis da ko yóndoo turu xéwal yëndu koo tuubal yàlla boobu xeetu yërmaande daa am feneen musta am ci àddina moom yërmaande ji moom da nga koy takk fenn yow sa bopp yaay jël sa xelum bopp rek nañ yërmaande ji daal fii laa jàpp ne fa la tolloon waaye foo ko takk moo weesu na yërmaande Sëriñ Saliou xajul ci dara dafa jullee ci xel ko ba noppi di dem mbuur bi ñu demee ba mu commencé leer mu gis benn xorondoom buy dox ci kaw yëre yi mu leer ko ne bi fële la ko toppee ci àll ba te bëgg koo tàggalee ki mbokkam mun a góor a dëppal góor a dëppaat ba fa mu doon jullee mu yëlëb ko xorondom bi wàcc ànd ak mbokkam li mu doon bañ mooy jëlee ko àll bële yóbbu ko ci ñeneen ñoo xam ne duñu ay mbokkam problème bu mu am bu boobaa moom la ko yàlla di laaj loolu taxrifu samdaanii la ah loolu xawsul waraa la waaw dafa am koo xam ne li ñuy woowee borom jamono dangay egg ci sañatoo rey dara sañatoo tànqam lu dara xoolal bi ñuy liggéey jumaay jumaay liggéeyaat bi ñu jekki-jekki rek sëriñ Saliou ñëw rek daal ne toj leen ñetti mool yi ñu toj ñetti mool yi am ab gunóor bu ci génne mu daan ne sallaahu moom de ndekk dañoo jëloon birig yi këppaale ko ci dañ koo tabaxaale woon waaye moom ma nga fa fam nekk di jooy naan ko sëriñ Saliou man ne dañ maa tabaxaale te ñëpp dañ laa war di gis ma war laa gis te fii ma nekk tànk jot siwu fi loxo jot siwu fi te damaa war a génn ndekk loolaa taxoon sëriñ def nañ ko fii ci xel koom daara joo xam ne dañoo def fondation ba noppi Serigne Saliou ñëw ne toj leen fondation bi te defaraat ko gars yi toj fondation bi génnewaat mool yi gis benn pax ndekete pax moomu janax benn janax moo ci am ay doom mais gars yi dañ koo suulaale woon birig yi fatt ko ndek janax ji mi ngi ci biir pax mi waaye moom mi ngi woo Serigne Saliou <laughs> naan ko maag sama njaboot gi fii lañ nar a faatu <laughs> parce que ñu ko tabax xamuñu ko. waaye ndeke foo mën a nekk foo taxaw mu fekk la fa foo dem mu jiitu la fa kooku ay Serigne Saliou yërmande ji sëñ bi foo ko takk weesu na ko moom kay comme ci doon da ngay wax fa nga ko yëgee rek waaye yërmande Serigne Saliou xel mënu koo jàpp lamiñ mënu koo tudd xel du ko natt lamiñ du ko tudd li daal laa la ci mën a wax barke Serigne Touba ah, moo tax it eh, xam naa ne rab bi bi mu doon ñaane looloo ko waral. bu mhm. fekkee sëñ Modou eh, jàppandi na. Mhm. nga nga ñëwal ñu ci rab bi rek tuuti rek alxa ñu ñu ñu ziyaare ko. ñu ziyaare ko أسانت فجاء بجاء أفضل من لله خل جاء عبد لرب الكريم لا شريك له وزاد اليوم نورا ساد الملاء محمد صلوات الله في أبد الإفيس به كلا أدو إلى الذي أمد واحد لجملة الخلق يختار من براء نجد جل نجد جل نجد جل ومن كرم تكريم خادم وكل بالحلبرياء رحمن حبل جميل رحمن حبل جميل الخلق رحمة من يهن أني شرعي ما القرآن وقرأ خدمة المصطفى خدمة المصطفى خدمة المصطفى خدمة المصطفى عن كل مفسدة وترحم الحلقة من جدهم بداء يا يا مالك الملك يا يا مالك الملك yaa maalikal mulki yaa maalikal mulki yaa maalikal mulki yaa maalikal mulki yaa maalikal mulki yaa maalikal mulki man jal al xawadim ilham jamil wala yaa xaadir daa yaa maalikal mulki yaa maalikal mulki yaa maalikal mulki يا مالك الملك يا من جلال خودين ارحم جميع الورى يا خادم الدعاء ارحم جميع الورى ارحم جميع الورى ارحم جميع الورى يا خادم رداء ارحم جميع الورى يا خادم رداء الهدي الرداء والحمد لله رب العالمين naa waaye nag jàpp naa ne euh, xasida gi neex gi mu neex baati araab yi ñu ko tënkee. Mm-hmm. waaye euh, Serigne bi irxam jami al waraa ko ci moo ko ci ñor. moom ci lañ bokk. Mm-hmm. jami al waraa waxul waxul nit ñi waxul jami anaasu de. Mm-hmm. mboolem nit ñi déedéet moo tax ma lay wax yërmande Serigne Saliou yi waxut ne nit ñi waxut mala yi lépp lu saa borom bind la wax lépp lu saa borom bind ca la bokk ku yaakaar ne bokkoo ci yaa ci jiitu fi mu ne loolu loolu loolu loolu suñ bi leneen la li ma la wax rek mënee su koo nat mm-hmm. déedéet mënee su koo nat yow mi nga xam ne nit nga yow yaay jàpp rek na man daal fii la sama lii la sama xel man a jàpp parce que wal xay bu asraarun wala ay hikmatun Sëñ Tuubaa daan na wax ne bokkuma aw ma fi doom aw ma fi jarbaat aw ma fi mbokk aw ma fi lenn li fi nekk moo dig taalibe bi bu noppi daan na gees yëkkati loxoom teg ci boppam Sëriñ Saliou daan na waaye Saliou mii di sama doom Cheikh Modou Moustapha Mbacké ku ne xam ne mooy gàndeeg l'islam Sëñ Modou Moustapha ku ne xam ne li mu doon ku ne xam ne Sëñ Modou Moustapha ku ne xam ne waajuram ku ne xam ne fu mu bokk ku ne xam ne fi ko Sëñ mbaa xam ne Cheikh Modou Moustapha Mamor Diarra moo ko tege moo ko tudde woon boppam Sëñ Modou Moustapha booba sëriñ bi léeg mu dem ci àll bi dugg ci àll bi ba nit ñi def ay fan duñ ko gis bi suñ Modou Moustapha ganee jamono dem nañ ba jamono yoo xam ne ba bisu tudd mi gisuñu sëñ Tuubaa sëñ Maamoor Jaara moo ko jël tuddi ko boppam sëñ bi ñëwee la wax ne ku la wax nga tuddi ko sa bopp moo waral Mouhamadou Moustapha Mouhamed mooy tudd Maamoor Jaara Moustapha mooy Rasulullah waaw waaye bi bi sëñ Tuubaa waxee ne saalihu mi sama dooma sëñ Modou Moustapha daan ko waxal ne ñoo bokk bàyyi ba may la kër mbaa xam ne sëñ Saliou lu mës a liggéey sëñ Mourou Moussa la ko jox sëñ Saliou fukki kilo gerte ak ñeent la njëkk a bay ci loxol boppam 14 kilo <laughs> lam ca am lépp sëñ Mourou Moussa la ko jox yii ci tool yii ci daara yi mu sa tàggoo ak laxasaayam googu sëriñ Saliou waxuma la yërmande ji mais yar bi Sénégal nañ yaruwaat sëñ Saliou gën a yaru ci àdduna waaye ñun su suñu bopp noo war a yaruwaat yaraat suñu bopp xam ne àdduna jeex na. li fi jëlee Serigne Saliou moom lu fi bàyyi ba ci waajtaayoo yi xoolal waajtaay wu mujj wi xoolal waajtaay wu mujj wi xoolal waajtaay wu mujj wi loolu leneen la incha allahu taala loolu daal leneen la soxna si loolu daal leneen la. loolu daal moom mënu ma cee xuus lu bëree bëree bëri jërëjëf Cheikh Mouhamed saa yu ñu duggee ci Serigne Saliou mu aalu macha allah moom ku ne xam na ne Serigne Saliou nag euh, daf koy bégee waaye Serigne Saliou tamit euh, ñi muy yëngal bari na macha allah sama xarit ba maa ngi koy wax Tamsir euh, daaw waxoon na Serigne Saliou jaxate ne ñu ngi koy may suñu waxtaan bi ci Serigne Saliou mbaakol mbaakol bi Serigne Tamsir communicate traditionnel sama xarit boobu ca ci kër gu mag waaye nag ju koo xamee ci ngi lay ziyaare bu baax tamit waa bijouterie Seexul Xaddim euh, Modou euh, Béye frère ak sama xarit ba Oumou Diallo ñoom lañu àndal tey jataay bi ñoo ñu sponsorisé euh, Serigne Saliou comme niñ ko waxee waaye nag Serigne Saliou ci fonk doomi Serigne Touba yi nga xam ne moom la bokkal comme ni nga njëkkee ah, ci Serigne Modou Moustapha moom kay Serigne Fallou Sey Abdoulaye waaw waaw Sey Abdou Khadir soxna May Sëñ Daam Abdourahmane waaw waaw ah, mag ñi daal ak Sëñ Saliou ñu daan jëflanteeg ñoom Sëñ Saliou xam nga xam nga kan moo doonoon sëriñam Sëñ Mourtala la jébul woon waaw ci sëñ Murtala la li woon ah kay mbaa xam ne kër sëñ Tuubaa gi li muy yaatu lépp dañoo jébbaloonte ci seen biir koo ci gis am na kilifa encore amul ku mag ak ku ndaw waaw loolu moom secret sëriñ bi la waaw loolu secret sëriñ bi la nit day am kilifa li ñu ci jublu mooy nit day am kilifa waaye amul kenn kenn ku doon doomi sëñ tubaa mbaa nga bokk ak moom koo xam ne sëriñ Saliou jariñu la amul comme ci doon sëriñ Saliou làq na sa ngërëm laata laataa muy doon sëñ Tuubaa ci kaw suuf ak kum ci doon da ngay xool rek ñoom soxna May soxna May Kabir dañ daan wax ne ñoom ñoom sëñ Mourou Moustapha dañoo yaakaaroon ne seen taalibe bi bàyyi la dañ daan wax ne si Mourou Moustapha xoolal soxna Astu Gaawaan da daan woo sëñ Abdou Khadir ak sëñ ba ñëw mooy leen dem leen farali ma këriñ ndax damay attaaya soxna Astu Gaawaan te doon soxna xoolal si Abdou Lahat Mbàkke ni mu toll nga xam ne <laughs> nga xam ne faqrul muridina man afda tamasatuhu lil ali wal ahli ma nahu kasila sëñ Abdou Lahat Abdul Ahadi xam ne bi mu gënee jamono fii nii Serigne Touba dafa wax ne maanaam la ma doon ñaan saa borom defal na ma ko daal ne Abdul Ahad day turam wii Abdul Ahadi ko ko tudd ku nekk da nga tàbbi àjjana mag ñi kenn ku nekk naan sa morom déglu ma ma wax ndax mën naa ko wala mënuma ko ñii di ko bind ci ay di ko jàng Abdul ko jàngandoo doomi Serigne Touba ju ne wax soxna Astu Gaawaan ne ko dama ko del dem di ma forali këriñ di ma ko ëndi ndax damay waaje kafe mbaa damay waaje ataaya kon kan mooy soxna sa moom itam waaye Serigne Saliou képp lañ mos a liggéeyloo waaw ak comme ci doon bu nee cas ñu ne ko bàyyil bu nee cas ñu ne ko bàyyil bu nee ko bàyyil kon am na cër bu mu leen joxoon ñu delloo ko ko waaye mate na ko sëkk nag ndax taxawee na ko gannaaw bu mu fi gannaaw bu mu fi desee amul kenn ku bokk ak Serigne Touba koo xam ne Serigne Saliou defalu la defalu la loo xam ne gërëm nga ko ca Serigne Touba gërëm ko ca li ma gënoon daane ci moom mooy boo tuddee maam Cheikh Rafal danaan bërit naan ah saa Baye Ibra Fall cëy Baye Ibra Fall cëy Baye Ibra Fall da ko daan wax da ko daan wax ba soppeeku te xàmmee na man sëñ Saliou li ma gën a yéem ci moom mooy xàmmee gi xanaa xamoo ne daaray xel ko mi tolloon nañ foo xam ne maanaam jëwri nii sax mënuñoo xàmmee gone yëpp déedéet yow secteur bi nga féete ngay xam kee secteur ba mu la xam gone ya kee secteur ba féete waaye pour nga yow dong nga nekk ci biir daara ji xam gone yëpp déet boobu moom mënutoon a nekk moom te gis nga kër mag moom xale yi par juróomi téeméer lañ daan doon avant ñu leen di tasaare léegi da xool bu leen sëñ Saliou tasaare ci daara yi ba noppi kenn ku nekk da lay xàmmeewaat encore waaw kenn ku nekk dalay xàmmeewaat mag ñi dañ daan dem bay wax loolu naan waaw Serigne Saliou mii ak at yi mu am du takk lonet du yorub montre du yub téléphone te maanaam loo ko wax xam na ko loo koy waaj wax xam na ko yàlla dogal ci fajar gi rek mu ne góor nañ dem buur bi ñëwee bay tollu jam ñaajo ñu gis benn waay bu yor ak golo di ko jaay golo gu ndaw sëñ Saliou ne góor waxaale ko ñu waxaale ko ba ci douze mille cinq cent sëñ Saliou moo génne xéewalam weccee ko golo gi mi ngi yoroon benn cinq cent cinq ñu wàcc golo gi ci ginnaaw 505 bi di daw wuuti mbuur bi ñëwee ba toll fi aéroport jas bi nekk sëñ Saliou jékki-jékki ne ko góor a taxawal góor a freiné sëñ Saliou wàcc weeru oto bi golo gi tëbe ci oto bi cëppeelu daw ba ci genn garab am golo gu jigéen gu mag gu jóge ca kaw wàcc àndaat ak moom yéeg sëñ Saliou ne ko góor koo koy yaayam ne ko foofu la ko waa ji jàppe woon yóbbu ko fële di ko fa jaay waaye dëkku fa <laughs> pour wax la ne dafa xàmme woon ba xàmmee ruux jaam yi nga xam ne ñii doon wax naan nan la mën a xàmmee ñii léegi moom waxuma la doom aadama yi waaye rabi àll yi sax da leen a xàmmee waale waaye sëñ bi loolu leneen la goo ko xàmmee nag munta nekk ba noppi nga boole ko ñàkk yërmande munta nekk munta nekk ñun nañ fexee copier ci yërmande yi Serigne Saliou ji te copier ci mayam yi te copier ci mbaaxam gi te sax ci ndigalam yi loolu daal moom mooy solution bi barke borom Tuubaa Cheikh Mouhamed xam naa ne dañuy euh, dugg tuuti nag euh, ci xelkom mm-hmm. ndax xelkom doy kiimaane ga ga ka xel comme kiimaane mm-hmm. euh, ren ji woote bu mujj bi ñu woote mm-hmm. daanaka ñu bari nee nañ àjjuma euh, ja ku ca dem daanaka roñ ngoon roñ ngoon nga fa fekk di ziyaare waale waa fondation sopp Serigne Saliou ñaari Serigne Saliou Sow Serigne Saliou kër Baye Laye sëriñ Saliou Sow kër Yelli Serigne Saliou Sow kër Cheikh Bokk ñu ñëpp maa leen ziyaare waa fondation sopp Serigne Saliou ñu ne euh, roñ ngooñ lañ fa fekk sëñ Fallou mii demoon na. Mhm. waa waa xel kom ak li muy produire. te nga ne sànq Serigne Saliou. Mhm. bi mu njëkkee bay fukki kilo ak ñeent la bay. ak ay tonnes yi tonnes yi tonnes yi tonnes yi xel kom di produire. fi mu moom kay li gën a jamono toll. li gën a tee doy waar mooy. man waxuma la waxuma la dafay génne tey jariñ àdduna bi yëpp. Mhm. wàllu koom maanaam li fay génne tey jariñ àdduna bi yëpp ci bépp matière. mais li gën a yéeme mooy. est-ce que xam nga daara yi ñaata la ñuy dépenser par jour deux cent dix mille loolu xajut ci mbay mi li daara yi di lekk loolu xajut ci mbay mi fi mu ne loolu beneen baatin la dañuy wax la terre promise gars yi yaakaaroon ne baytul maqdis la ñii naan barab sàngam ñii naan barab sàngam xel koom la maa xam ne xel koom suuf si nit mus mus faa mooy yàlla ki dàqa mooy yàlla boo ko yóbboon xel koom dafa mooy fekk muy fekk muy dellu si wala xam loolu suuf si ci boppam la yàlla aaral boppam suuf si la yàlla aaral boppam xel kom bokkut ak Touba bokkut ak Njaaréem suufus boppam la soo xam ne bu fekkee li Sëñ Tuubaa di wax yaaral xafaayaa bi aynal xal bi zahidatin kamaa yu si ay duma taxtil akinaati boo fa duggee dana am loo yëg da nga xam ne fii bokkut ak suuf yi nga daan dem bu dee nite bu dee nite nga dara da nga xam ne fii bokkul ak fi doomu aadama daan dem xoolal daara yi nin sorentee diggante daara ju nekk ak nangam diggante daara ju nekk ak euh, morom ja nangam nangam nangam nangam nangam xoolal doomu adama yi bu ñu ko wootee kenn ku nekk ne ngay xataraayoo kenn ku nekk boo sañoon defal ko sa bopp yow mm-hmm. la bi lii ab cër la xel ko ma gën a yéeme ci kaw suuf màkkatal mu karama boo fa demee fekk fay bàkkaar Touba gii li muy baax baax baax doon capitalu murit yëpp bis bu nekk nga dégg fa kàccoor bu nu fa jàpp ci loolu koy tere am diir sëñ bi xel kom nag da ngaa mës a dégg ku ñu fa téye dafay def dara luñ ko luñ koy tere suuf si ci boppam la yàlla protége was alil xariyati lati naa fiiha wal ayda lati aqbalna fiiha wa inna la saadiquuna gaa yu dëggal yaa fa des barke borom Touba. yàlla ñu ko yàlla fayal Serigne Saliou jërëjëf euh, Cheikh Mouhamed Sène euh, damay euh, ziyaare waat nag nga ñaanal Serigne Moustapha Saliou Serigne Cheikh Saliou Cheikh Moutada ah, ak jàmbaar yi nga xamee ne ñooy leeru Serigne Saliou te des ci daara wallaahi wallaahi daanaka ñu ci bari ràññeekuwuñu ndax waaw surtout Serigne Talla Serigne Talla Serigne Mourtala mhm. tase nañ fii kër Serigne Malick Dieng mhm. ñoom ñoo ñu ancien tuuti nag maa ngi ko fàttaliku mu talaamu sëñ Saaliw ak mu talaamu sëñ Sohibu ñu naan talaam sëñ Saaliw ak talaam sëñ Sohibu ñoom daje leen fii ci daara ji waaw ñoo magoon nag waaye seen génération laa bokk parce que man damaa teel a mokkal waaye waaye amoon nañ amoon nañ pëstéef lool ci jamono boobu suñ murtalaa mu suñ saaliw li ma gën a fàttaliku ci moom mooy gars yi dañ ko daan dénk ku ci yor ku ci yor dara loo bañ mu kii rek moom moo koy dénk waaw dafa juboon comme li ñuy wax al amin comme li daloon Seydina Muhammad sallallahu alayhi xam nga ñi ko gëmul woon sax daan nañu ko dénk ay yëf sëñ Murtala moom noonu la ma samel waaye gis nga leen njabootu sëñ Saliou doo ci dégg kenn doo leen dégg ci dara déggoo leen ci politique déggoo leen ci ay boutique déggoo leen ci dara kenn daal laa gis mu copier mooy sama dul Muntaxa Mbàkke sëñ Muntaxa wala sëñ Muntaxa da nga xam ay toolam fu mu ne parce que dégg tool yi sëñ Muntaxa ay bitigam nag lu muy liggéey ah, ah ah ah yaroon naa lijjanti dundam gépp da koo jox sëñ tubaa ku fi mas a doon sëñ tubaa ci yow lay xëy yaay ab toolam yaay bitigam yaay magasinam yaay kontam yaay léppam moo tax sëñ tubaa di ko fayee lii tey <laughs> waaw ba ci bi sëriñ Saliou demee xoolal ni mu daan def laaj baara sëñ laaj baara ñëw na fii sëñ Muntaxa di daw di ko wër naan bu ko kenn jege takk takk ndigli ndeysaan bu taxawee gauche du wóolu droite bu taxawee droite bi du wóolu gauche bi day dox di ko wër sëñ Muntaxa takk li ba wow koŋ man ci laa xamee nekk sëñ Muntaxa daa tuuti wallahi ci laa xamee ndeke daa woor a woor a woor ba tuuti nan bu ko kenn laal mu ne ay waay seetal kii rek seetal ma ji jëmm rek seetal ma ji jëmm yorutub tool yorutub magasin yorutub boutique yorut lenn yorut lenn yorut lenn moo tax ba waaji naan maaraay yi ay mallette la ñuy xaar pour ñu jox leen ay mallette yàlla dogal coronavirus commencé si moom mu daal di teel a joxe moom ñaar téeméeri million rek ma daw demaat ca waajooju ne ko da doon diingat mu ne ah, ma ne ko ma ñen ñooy laal mallette waaye man sama sëriñ yow nga joxe 200 millions waaw gone yi bi ñuy dem ci géej gi di dee ndax dañ ko tàggoon buñ ko tàggoon bu leen dem la leen di mm-hmm. waaye danoo dem ba dee mu yëg ko dem jaali ji seen i mbokk ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak ak social bi ci suuf ba jamono tàmbalee ba léegi nag maa ngi su ko dégg loolu mm-hmm. képp ku am looy indi téye ko te ñuy laaj na ngeen leen ma leen indil ma jox leen loolu moom mu taxaw ko ma sa def moom mooy baaxug Sëñ Tuubaa gi mm-hmm. mooy baaxug Sëñ Tuubaa gi lu jaroon a seetlu la doo dégg bu tigam doo dégg magasin am doo dégg mu santaane liggéey santaane wut lenn lu paase liggéey ak jaamu yàlla bëgg sëñ Tuubaa wa kalimatullaahi hiya al-ulyaa waaw <laughs> ah, moo ko wax wa nag hiya al-ulyaa nag kàddu yàlla gi lépp rek <laughs> loolu saa borom ñu ko yàlla fayal barke sëñ Tuubaa Cheikh Modou nga mayaat ñu dara ah, ñu ñu ñu ñu yeggale émission bi wala ñu tëj rek jotaay bi ah, waaw dañuy dolli ba beneen yoon rek sëñ Modou na na na yëngu moom kat taarkat la mënatuma jigi yéen ku may jooy sama sëriñ ba Cheikh Salim Mbakke ci àdduna yaa kama juuy sëriñ Salim Mbakke ku ko gisoon mu gis la koo mën gis du tee mu saf la sëriñ Salim ko amoon te ñàkk ko kun mën a du teenu faale ko sëriñ Saaliw Mbàkke sëriñ Saaliw maa dëgg ñuy wax na ah du géntu day nax yéemee su ko wax ay mbakke dëng loo nax ka julu woon géej Cheikh laaj borom ne ko muy si naa sëriñ saali dem moo gaañu fu ñuy jëm ñoo gëm dañuy dem waajal ko jot naa sigil na baayam sigil na baayam sigil mboolem Sénégal sëriñ saali mbakke dem naa sigil la baayam sigil la waayam sigil la mboolem Sénégal Serigne Saliou Mbacké dem na kuy dooru dooru kuy jooru jooru kuy dooru daanul joo déggu jot na kii daal di bay saal ñemees koo jaal kii daal di bay saal ñemees koo jaal kii daal di bay saal ñemees koo jaal kii daal di bay saal ñemee su ko jaal kii daal di bay saal ñemee su ko jaal xel boo ngi jooy alxuraan na ngi jooy wakaan ngi jooy jëm Serigne Salim Mbacké wajax ku bulee bi hamdi musukoor ilaa wali mu'minin sukoor yaa waliyu yaa xaadi yaa nasir lil mu'miniina innaka alaa dil basiir asabta fawran li siwaana kulla maa laysa yakunu mu'mina jaasa samaan asabta fawran li siwaana kulla maa laysa yakunu musliman jaasa samaan asabta fawran li siwaana kulla maa laysa yakunu muhsinun yaa sa zamaan barke Serigne Saliou est-ce que jërë ngeen jëf ah Serigne Modou macha allah Serigne Modou li muy jàng am na solo daanaka séeréer ak procureur dañuy ah, kalante moo tax yenn saa ñu di ko tooñ waaye Serigne ah, Serigne Modou jàngkat bi macha allah eh, ah, nee nañ la dama koy bàyyi sax nag ndax Serigne su bari nee nañ taalibe séeréer moom. Mhm. macha allah day gëm te day dëggu. <laughs> comme niñ koy waxee. moom nga may ñu ci séréer rek. comme niñ koy waxee ndax man ñu bari. loolu suñ Touba da <laughs> <laughs> daan na toog fii ci njaareem. ba yàgg mu daan mbaa yéen a ngi séeréer si ndax ñoom it duñ fen te luñ lekk ñoo ko moom waaw xoolal boobu e- adresse bu rafet ndax ñoom it duñ fen lépp luñ lekk ñoo ko moom waaw diggante waxu ji mboosee ko jàpp lañu fii samedi ñu yoppam ñooñu ñëpp ay wóolu dem dañ ñu woon sax muy gëm gis nga nguur ak jegaan moo ak ñu ma a mel tam buñ ko seen seen bant ah, yaa ngi kooku mm-hmm. ah yaa sa ruq mu ne waaw moo tax gis nga buñ mujjee wàcc li ci xew yow ñaari ceeb la yoo xam ne. yàgguñu alxuraan. Mm-hmm. nekkuñu ci diine rasulullah liñ mm-hmm. leen di màggalal màggal bu toll nii jii. Mm-hmm. li ci def yàgg xëcc bi toll nii. ñoom ñaar ñoo ca dal. buur si Kumba Ndoofeen Juuf la buur si. ak bàmmeelu ne nii la jublu. ñu fay sotti parfum li fa sotti ay saako muy xaalis. li mu ah. li mu wàññi ko li mu wàññi ko li mu wàññi ko li mu wàññi jur ba la jébaloo Cheikh Bamba mbaram Cheikh sama la sama sëriñ yónni mu jokko naaru góor u weex wuy buur si waaw waaw noonu lay mel noonu lay mel c'est que moo riche noonu loo ca laal mu fees del ku ko gis yaa gën ku ko gisut ku ko jege yaa gën ku ko ku ko bëgg yaa raw ku ko bëggut fekk àdduna yi tukki nag yàllaa ko ko faye li nga wax rek séeréer day dëggu xool sëriñ Ismaïla Diouf boroom kamadu xoolal lim defar hmm? xanaa xamoo ne indil yàlla benn client ci lislaam moo ko gënal rayal ko téeméeri junni noonu yoo xam ne sawara doo ngu leen jëm ah? yàlla rey gi ray gi rey rey gi jafewu ko daanaka jëru ngay ngay dagg baatu kenn jëru ngay koy fetalal kenn waa ji daa nekk ci lu ko neex daanaka jëru nga koy lottal bàyyi koog boroomam dana ko lijjanti waaye xool suñu Ismaïla Diouf borom Cameroun li mu liggéeyal yàlla ci diine yow dëkk boo xam ne boo fa masaan dem kuy jënd sàngara fa nga koy jënd ji kuy jëndum poon fa nga koy jënd ji léegi nag nga egg ci buñ noddee nga yaakaar ne waa Madinatu Munawwara ñooy nodd mokkal alxuraan lool di jàng xaside yi di julli di woor ba noppi di togg ndogu di ko yóbbu Serigne seex Ndigal seen borom jaamur nag xool gayndeeg lislaam gi xoolal Serigne Cheikh Ndigal seen lim liggéeyal yàlla ci kaw suuf maanaam bu arrêté woon sax saa borom da koy continuer di koo fay te leer na ma ne xoolal seexam yi Seydina Aliyu ñing xoolal xoolal seex yi seex si seexali seex ba seex yay seexal yeneen seex ma ne dëkk boo xam ne ku daan jënd poon fa ngay dem ku daan jënd sàngara fa ngay dem tey ku ngàbbu poon da ngay tegg dëkk boobu doo fa ñemee jaar waaye ak defar daa mën a weesu lii kon kat fër rasulullah sallallahu alayhi wasallam fekkoon su waraa ul jaahiliya jaahiliyatu ulaa ñu njëkk ña ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam génne leen foofee ak jaahil yi nga xam ne maam ñoo nekkoon ci biti Sëriñ Tuubaa fekk leen fi génne leen foofee séeréer sii tey loolu lañ liggéeyal yàlla ci doolee Sëriñ Saaliw dëgg la Sëriñ Saaliw jamono Sëriñ Saaliw lañu lañ leen soog a kii waaye boo xoolee Sëriñ Ismaayla Juuf borom Kamadu ca jamono Sëriñ Ablaat la ko Sëriñ Ablaat doon bàyyi xel di wax ci moom ay yu doy waar yu doy waar yu doy waar yu doy waar waaye nag mi ngi fële si nag fi ñu ko yëgee ñun mooy jamono bi fi Sëriñ Saaliw nekkee nag li xew ci la xew xamoo ni ñu bare baree bari sax xamuñu sëñ Ismaïla fi ne sëñ Cheikh Ndigal lañ xam waaw ñu sëñ Ismaïla dafa dëxëñ mbiram ñu baree ba doo ko dégg ci dara xanaa gàmmu gi waaye bu gàmmu gi weesoo doo ko déggaat ci dara sëriñ Cheikh nag yàlla dogal mu yaatu rek wër adduna bi yàlla ñu ko yàlla fayal barke borom Touba yàlla ñu ko yàlla fayal kon yàlla nañu yàlla fayal sëriñ Cheikh ndigal seen comme niñ koy waxee waaye di ziyaare waale Cheikh Mouhamadou ñu lay ziyaar bu baax di wax nag euh, nga tàggoog mbokki téléspectateur ma doog a jox Cheikh Mouhamed après nag ñu tëj jotaay di leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah may tàmbale. Mhm. damay siyaare Serigne Modou Diouf ngay ne Serigne Cheikh. Mhm. nga xam ne chaque chaque weer. Mhm. day dajale ay millions yu bëri. di ko yóbbu Serigne Cheikh Saliou. mooy kooku papaam Serigne Saliou Mbacké moo ko defaat. amoon na 40 ans de chrétien. mooy Serigne Saliou Diouf. waaw Serigne Saliou Mbacké moo ko defaat. doomam moo fi des. xalifam Serigne Khadim Diouf ñu ngi koy siyaare. ak Serigne Modou Serigne Cheikh si boppam. moo koy woowee ngay di seen ci ndax ni mu doonee jàmbaar chaque weer mu ay millions yu bëri di ko yor suñu chef daara xel comme wala wit bii war nañ faa dem am nga poroxaan foofu la ko féetale mm. kon ñu ngi koy seer sëñ Modou yu ngay di seen kon bisimilah mm-hmm. nuuru lay jërëjëf isma yàbbi kemaan nuuru laa jërëjëf isma jibril fu malaaka ba dem mu doon garmeeren kaade sax mano ba ade ba nana koy nawa mu da dem na so malaaka nana koy nawa ga ambi an batamin nuru la hilaqto nuru la juuf adal fu lak dana nof yawak na adal fu lay rakidin ba mali darey na a ah, ah, Sëriñ Tuuba lay ne nuru bul xalaate foog nga boole laa ki lay jàppee liggéey jee yàgg anta layta anta dal fa layta boo jumay net siñ ba ma ka gay iima càppeer borom ndigal seen sa isma coo daangi xarabaa um sant anuun fa sem ndigal seen om sant anuur fa seen ndigal seen nunu seereeru lay ta fat nu njabo ndogal rokkaale o koy delu dem na kaami den o gii lo fetten ta leera naa den Serigne Ismaïla Diouf rokkoolun Serigne Cheikh ndigal seen rogo ji ñun ke doon def na rogo jërëjëf euh, nuyoo beeg tàggoo beeg yëpp macha allah lépp am solo ñu ngi lay jaajëfal di la ñaanal yàlla wéral la. Mm. yàlla màggal la ah yàlla baaxal lépp li nga xamee ne barkeelal li ngay def ndax bu ñu fàtte nag moom mi mm. ah, day jàng fii ci université. virtuelle ah, ah, bi macha allah foofu mu ne. di jàng français tey ku ko gis da nga naan kii sax xamul dara ci français te fekk ne maanaam kéemaan la daal ci kéemaan la ci kéemaani yàlla yi kéemaan la ci kéemaani yàlla yi ñoo ngi leen di siyaaraat baax nag di ziaraat waa adduna bi yëpp surtout waa diaspora bi suñu mbokk taalibe yi yaa xam ne gëjoon nañu ñoo dégg tabaarkàlla ñu ngi leen di ziaraat waa diaspora bi ñëpp nag sama message bi mujj daal mooy na ngeen waajal élection yi réew mi ñëpp ngay ñor di ku nekk naan man la man la man la lii la lii la laala laala coow li na kurut bu leen kenn toj loo yooyu sëñ yu jëlee na ko fi 31 décembre ak 24 décembre ay sipp lañ doon sol nekk ci buwaat yi di yëngal fanaanee taxawaalu fanaanee cakaay fanaanee caaxaan Serigne Saliou dem bala la 27 le 28 ñëpp du waajal bis booba mu dénk ñu suñu borom gis nga ko léegi bu egsee ay jàng ngay gis ay berne bégal sa waa kër nag comme neex mën nga koo def comme neex demal ci marché bi ndugg fa ndugg ma gën a baaxi togg lu baree baree bare lu yaatu mbokki taalibe yi ñëw gaa yi xéewlu ba mu baax tabarkàlla loolu kenn terewu ko waaye lañ ca daan def ci wàllu zahir laa wax 31 décembre loolu Serigne Saliou jëlee na ko fi di ngeen ko bàyyi xel bu baax a baax dafa waxoon ne su ma leen jiitoo danaa taxaw xaar leen su ma leen xaaree yu yàgg ñëwu leen dinaa dëpp jël si leen waaye duma ma dem mukk bàyyi leen loolu la ñu dénkoon dañoo toll nag ci jamono boo xam ne fi mu ne élection yi li ci des bareetul kenn ku nekk naan man la kenn ku nekk naan man la maanaam doo ci gis ñenn ñuy yàq wala ñuy yëngal kaay leen xeexle ma waaye doo ci gis soxnaam doo ci gis doomam doo ci gis ab jarbaatam moom ci woppam ci otoom lay nekk te naan gaa yi dim leen xeexi nga génn nag romb jàmbur boo xam ne ndeysaan ma nga góorgóor woon ba am benn magasin nga ñëw dugg fa tibb loola neex jàll tànnoo ci réew mi la bokk romb station boo xam ne xamoo station ba fu waa jaar ba lijjanti ko nga ñëw dóor ci ay xeer taal dajji pharmacie yi gaañ ay doomi jàmbur lakk ay otoy jàmbur tojate te yow ki la koy defloo gisoo ci yaayam gisoo ci baayam gisoo ci bàjjanam gisoo ci ab jarbaatam gisoo ci doomam seeni doom ñu ngi leen yóbbu ca bitti Sénégalais yi nañu am fulla ci loolu kenn ku nekk sa carte d'identité bi yaa ko moom kenn ku nekk am na koo wóolu da ngay bàyyi ba vote jot nga xëy ndékki ba suur sangu ba set dem yëkkati wenn xob dugal ñibbi si toog bu subaa ñëpp nekk ci jàmm loolu daal moom mooy mooy ndigal li moom waaw tan moytu na caaxaan yi ak cakaay yi nan moytu caaxaan yi ak cakaay yi li ñu doon wax rek àdduna jeex na bànneex ba jeex na dëdd ko jot na ngir Bàmba wéy na kenn ku nekk ñi am wàll ci sa alal ñi ngi koy xaar de te danañ ci jot kenn ku nekk ci ñun ak tële mi ngi dàq sax man te dana ko jot kenn ku nekk ak wéradi mi ngi dàq sax wér dana ko jot maa ko moom maa moom maa moom maa moom loo moom dara yow boo nelawee fàtte boo dee ñàkk. koo xam ne bu nelawee fàtte bu dee ñàkk yow loo fi moom dara. li fi nit mën a wax ni lii maa ko moom mooy jëf joo jëfal sëñ Tuubaa tam nangu ko jëf jooju moom yaa ko moom moom mm. yàlla ñu ko sëriñ bi nangul barke borom Tuubaa soxna may mm. ñu ngi lay ziaraat bu baax nag yow ci sa bopp ziaraat bu baax a baax tabarkàlla ñu lay ziaraat baax <laughs> dëgg yàlla namoon nañ la yàlla yàlla barke jërëjëf Cheikh euh, kon nag dañuy tàggoo rek euh, jataay bi jaajëfal ñi nga xamee ne ñoom lañu daan àndal waaye di jaajëfal nit ñi nga xamee ne ñu ngi wax ci ñun lu baax di ñu laajte ah te defaluñ leen dara amaana ki la bëgg rek euh, moo la sonal mm-hmm. waa wax dëgg yàlla ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen safoog seen faaleeg seenu bëgg waaw ay jaam yu xeebu lañ waaye waaw suñu sponsor yi sponsor yi waaw man <laughs> maa ngi njëkkee ci seexul visiteurs yi marché Pétésel. Euh, Serigne Modou moo doon gérant ba ak ña mu àndal ñoom euh, Oumy Diallo yëpp. numéro téléphone Serigne Modou ca marché Pétésel 77. 621 31 39. 77 621 31 39. 76 309. 59 36. waaw foofu la daal mel na xanaa ku fa dem moom aajo yi dana faju. dana <laughs> faju dana faju 76 309. 57 euh, 36 ku dem ci Serigne Modou fee ca rond point PTSL takk ci yu mel nii macha allah ah, waaye nag abima bi du ma fàtte mhm. euh, Serigne Fallou Ngom fee ca marché Ndoumbé Diop moom moo ma ko jox macha allah euh, Fallou Ngom Bichri moo ma jox lii ah waaye nag ñaw yi mhm. maam Thierno Niang njàpp Ndiaye ak Abdou Seck sama xarit ba jàpp na ci sama xew mi ñaanalal ma ko bu baax ah, ah, ci Abdou Seck macha allah waaju baax a baax a baax li ma defaral rafet na yiw na taarkalla kon nag bisimilahi ba beneen yoon di ziare Serigne Fallou nga xam ne euh, mooy borom xel comme production moom la ñuy àndal jataay bi saa su ne muy leer ba pare doon suñu technicien ba pare doon na ah. yàlla doole jàmm mook soxna sa ah di ko ñaanal jàmm ak salaam soxna Serigne Fallou di ziar di wax nag fii amaanillahi ba beneen yoon ak seen doom seen xarit soxna may bintul xaddim dinañ ñëwaat incha allah ci yeneen jataay waxtaane mag ñi ndax euh, ñu ñu koy laaj euh, ñoom Serigne Mbaye Sarr ak ñi nga xam ne rek mooy mag ñi daan ànd ak Serigne baax ba beneen yoon duma fàtte mukk sama sëriñ bu baax ba ah buur mbayaar ak saambe yëlli manel maa ngi lay ziyaare njaay jaata loo loo gën a dund rek mu gën a baax ah ak suñu tuut tànk bi macha allah ñu ngi ñaanal ñëpp fi amaanilaahi ba beneen yoon ak soxna may bintul xadim ak bijouterie cheikhul xadim ak abdou seck ak sëriñ fàllu ngom ñu ngi ziyaar ñëpp